waaye di nuyoo ak jaajëfal leen bu baax a baax a baax waaye balaa may sori rek dama leen di jaare di leen jaare suñu mbokk nga xamante ne ci prestation de serment bi gis naa xamante doomu Sénégal la dem na ba taxaw koo xamante bu xëyee ci Sénégal lay xëy bu gontoo ci Sénégal lay gontu muy Mohamed bin Abdallah Dionne ñu leen koy jaale parce que ñu ñëpp la servi ñu ñëpp la servir en tant que premier ministre de la République du Sénégal di ko jaale Sénégalais yëpp di ko jaale jamono je disais tout à l'heure maa ngi doon wax ne maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gannaaw na yooyu ma leen nuyu ndax jëf ngeen jëf ngeen te seen jëf rafet na ndax bi taxawaay jotee Sénégal soxla ko ci bépp doomam bokk ngeen ci ñuy bàyyi seen yitte ñu joxe seen jot joxe seen alal joxe seen nelew jox ko seen lépp ngir taxawu Sénégal taxawaay bu mu soxla ngir ñu changer li nga xamante ne moo fi nekkoon ñu ñëpp loolu kon yéen ñiy jëf ak ñi ngeen ci àndal te mënuñu teew ci saar bii maa ngi leen di jaajëfal di jaare ci yéen di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ngeen bokkaloon liggéey bi gis nga ci terrain di leen ñaanal ndax xam naa ne coono at campagne électorale ñoo ànd yenn saa yi sax mu ànd ak feebar ak coono bi day jëm kon maa may leen taw feex bi ngeen noppaloo dindi coono gi sa yung gira niya sa Dilen felicite xeex def li la war loolu kuy jël responsabilité ci bu circonstance taxawee moo ko mën waaye xeex tamit ànd ceeg fula bu mat sëkk matal li nga xamante ni ci yow la aaju parce que jeune dañ koy fàttaliwante tout le temps ñu dafa am lu nekk suñu loxo mooy li ñu war ñu doomu aadama am loo xamante ni ci loxo yàlla la ay nit sonn nañu lu weesu ñu sonn foofu def ko ci condition yu gën a métti condition yu ko defee def ko ëpp ñu moyen def ko ëpp ñu tuur def ko ëpp ñu daraja te yàlla sotti loolu ñu doon waaye li nga xamante ne mooy suñu loxo mooy li ñu war ñun maanaam def ci fulla ak fayda bu mat sëkk bu jaral ñu bañ a nelaw coalition Diomaye Président mooy la seule bi nga xamante ne moo doon tenir meeting bu fees dal ak nit six heures du matin six heures du matin def ko deux heures ba ci ndar tam te saa yu ko defee ñi ñu ñi ñu fay fekk mooy ñoo xam te ni ñu doon xaar ay waxtoo waxtu ci dem kon li ma li li li mu soxla woon ci taxawaay ñu matal nañu yàlla def ci barke boo xam ne dañ ci koy sante bu baax ba ndax jox nañu lu ma doon woowee sax ndam waaye sas responsabilidade, bi nga xamante ne moom la ñu assumé o ne réew mi fu mu toll doomu o mi yëpp ñoo o war a taxaw o, ko xeex ko ba jële ko kon ñu ngi ci première phase mooy phase conquête levier de transformation qualitative de la vie des citoyens maanaam soppi dundinu doomu aadama yi nga xamante ne ay Sénégalais ci nu mu teg na ko suñu loxo ñun ñëpp sas ko ci booba lay gën a rëy kon derrière les félicitations dégg leen ci ay encouragement ñaaxaat ci ñu bañ a fàtte mukk li tax ñu doon wut ci bañ a mukk ci jaar-jaar yu ñu jaar-jaar yu ñu am ci utin boobu lan lañ ci ay nit ci ay sacrifice muy ñun ñi nekk fii ak ñoo xamante ne mën nañu soo sootuñ bu ñu ko fekkee bu ñu xoolee seen bopp moom leen suñuy loos te mu ngi surtout nag ci nga xamante ne parmi ñun dinañu may responsabilité ci médias ma ciy jaaral félicité ñëpp ñi nga xamante ci gouvernement bi premier ministre Ousmane Sonko proposé démb ñu validé ko tàpp nañ leen ci. day ñaanal ndam day ñaanal tamit sàkko wér gu yaram bu ñu matale seen mission mission bu rëy boo koy wax yaakaar ci askan bi suñu bopp. Euh, màgg na lool màgg na trop te ñu nekkoon ci convois yi yëpp fu ñu dem. non seulement ci seen mbooloo muy daw seen garab non pas parce que seen colin rafet na non pas parce que ñoo ëpp daal non pas parce que non pas parce que non pas parce que mais surtout parce que dañu am yaakaar ne ñoom su lu ñuy dund te mu dara lool ci ñoom ñii ñuy daw nii seen garab mën nañ ko leen mën nañu leen ko teggi lool ñu wàññi leen bu baax a baax parce que foofu la ñu war a teg kap pour demander une attitude, demander une démarche qui doit être exemplaire à tout prix. Euh, du ma gën a sori nii xam naa ci sama benn allocution di ñëw dinaa ci apporter loo xamante ne inspiration la bu ñu jëlee ci coalition Sonko président 2019 doonte gañewuñu woon dañ ko dépassé rek